Siteu Siteu Falamaren lañu fekk ci saal bi muy traîner. Ah. mu am combat. ñu bëgg a xam nan la koy préparé. Ah, ndaanaam nuyu nañ la. waaw ziar nañ la nijaay yi. Ah, dañ jox seen waajtaay ñi ma fekk ma nekk ñi ma nekk ci saal ma fekk ci saal bi di leen nuyu ñoom ñëpp. Mhm. ñoom bàyyi aw ma seen fay. Mhm. jàmbaar yi. ñi mhm. ma fayal saal bi aw ma fayam. ok Moussa. di sama mbokk yëpp. sant sama gaa yi. parce que man bu ma jógee li may topp daa bari. te li ma yaakaar daa bari. Baye Fall waa Sikori la. waaw dinañ maam borom Daara. waaw bu wér. ok waaw. combat bi kañ la. la 7 décembre. la 7 décembre. waaw sa diggante ak kan. Macky bu Garaaf. Macky ah. ma Macky taxawoon ma jóg ñame laa soxla mu ne ma Macky mooy barrage bi. ok tax mu bëgg a kalaate bi dugg fa duggaat fa Garaaf. ok ma jëm kéema la. lan nga koy waajal bés ba. un séeréer rek trois séances xale bu ndaw di ko safoor. di ko teg sama yaram ñu may teg coono yu métti. Mhm. ba la ma takkee ngem. Mhm. ànd ak bool bool ci yaay ànd ak bool mboor yi mhm. ànd ak jàmbaar yi waa Sikori Baye Baye bu xeexee ma dóor ko mu nelaw ay mbokkam for ko mhm. bu bëree ma ne ko cas mhm. ay mbokkam ne ko muñal parce que dama ko gën a metti ragal ma fu ma jëm booy ko au sérieux rek ñu ngi koy pare physiquement tactiquement ndax lan li luy topp mhm. père li luy dafa bëri xale yu ndaw yi fu ma toll ñu may ñaanal Baye Fall yi maire paa yi ñi bëgg xam si te père man dama am coowal lam ba pat lan ma defal Bantamba évité ma fu ne xajatuma terrain la treize le sept dama am bés te le treize fii laa toog keroog benn promoteur di ma woo ne ma bëri ma le treize si ma ne ko dama am bés le sept mm-hmm. bilaay walaay ñu ci liggéey lu bëri doole kon sa waay am na problème quoi problème bu rëy la am bari sëriñ mais booy Grand la de booy Grand la man bo man booy laa yaroo Grand Dakar ba mu dëkk ci Grand dama laaj maa dem a jëy bigi bu Grand Yoff yooyu ma xam bilaay walaay ah. looy wax say supporter nan la ñuy waaj supporter nañu ñëw mobiliser non non violence xel jógalal ma ci kaw ma ci suuf mën naa bés bés du gànte man xam naa li ma mën bii mooy sa ñaata combat lii mooy lii premier combat arène la. ah premier combat arène soog a door la. soog a ci saf saf. Mhm. ak a ñoo mën bis. waa Ñaar waa benn waa Grand Dakar. waa Ñaar Tali ma seen fay. barki borom Touba Mbacke NCB aw seen fay bu damay juum. waa Grand Dakar aw seen fay jàmbaar yi damay juum. bilaay walai, wa wa wa wa pik wa fi abel tamit aw ma seen fay Jambari yi leen wax lu baax saay nam ma dara laay booba di ko sant di ko jërëm vitamine la may jënd la laay booba sama commun sama lépp jambari. yi di san ñëpp ay ñoom Cheikh Diallo Baye di san lépp maa ànd ak rab añ bu neex bi bu ma limee rek damay juum sant ñëpp bari sëriñ Bouba jàmbaar yi dëgg la waay bilaay walaay bu ma limee rek damay juum bés bi daal daa mel jaral na la quoi my life café ga am di cuus bés dama jaral moo tax may safo nelaw trois saas bu may jóg di liggéey mu ngay nelaw quatre heures laay dem bu ma demee géej gaay xaj tafalaan naa fa fekk boo fekk nit déedéet kay bilaay walaay te loolu ma taj doy maa njëkk entraînement bi maa fi ah, mu waaw gis nga waaw maa ngi coow dafa bari ba gën a nu toog. waaw ba gën laa ji rek dama am coowal laam. dëgg rek laa leen wax ne leen ma leen jàppee du ma leen mooy. ñu naan ma paa nga kon baax na ba la suuf si la sax. ok. mais li ñu la fekk fii ngay entraîné pas du entraîné gis nañ la ngay entraîné lu doy waar. bu bu ma ci jógee ngoon bu ma ndekkee. ma añ dallu ngoon cinq heures maa ngi dinañ. diwaan pël machine la nu ma jox. ok Cheikh Diallo aw ma fayam. bàyyi aw ma barki Serigne Bamba Mbacke. ok dañuy son ci man. dëgg la bilaay walaay reeru mbëri ak a ngi dugg. waaw bilaay walaay. bés bi daal café woo ko quoi. bés yi café la woo ko te bëgg naa ci jàppale nag aw ma jàppale bëgg naa ci jàppale carré kañ. ñan ñan ngay woo pour ñu jàppale 15 car laa la yàlla def. maa ngi woo Arona Kouma Dofène mhm. Ismaïla Sène mhm. Abakara ci combat bi jàmbaat yi Abakara Seydou Magat Aba la ma bés moom Baye Fall la Baye Fall la di ci woo Jibril Wade mhm. di ci woo képp koo xam ne da nga bëgg si bu faramaare te sa loxo jot sa ginnaaw nga bëgg ko jàppale ci bés bi di la ci woo incha allah kii mooy xaritu muumin yi sama waa koñ koñu étoile sama koñu maire sama papa aw ma fayam sama yaay aw fayam ñu may ñaanal mais sama waa koñ tamit 呃，观众 ko ñu ma jama faal ñu jàpp ci combat baax Baye Fall di sant Café Life Baye Life maa koy sant grand dame di sant jàmbaar yi alaaji moor di leen sant ñoom ñëpp Pape Fall aw ma fayam mag boo di sant ñëpp bilaay walaay jàmbaar yi di ñaanal ñi nekk ci kaso yi yàlla génne leen ñi fëpp feebar amiin waay yàlla fëgg seen bopp amiin waay ñi ñu jiitu yàlla xare leen àjjana gën a kawe amiin Baye Fall addunaa ngi noonu incha allah yow dinaa la seet si café ba lu gën a yaatal boo ñëwee rek waaw place Cheikh Diallo xam nga amul benn problème. asalaamaaleykum wa rahmatullah yéen waa Ngoy yéen waa àdduna képp koo xamante ni abonné go rek dawal si Ngoy TV nga dem abonné nga mën di seetaan lu ñu mën di dugal nga dem seetaan ko incha allah c'est Ngoy TV c'est leen di ziar di la ñaanal jàmm te di ko sàkku si yéen.